arbitre bi siflé na dox ci diggante yille ak teq daan eh teq jël jël nga adversaire nag yille moo xaw a ëpp boo xoolee waaye teq jël bëre be moom dafa garaaw moom dafa dooj waane nii lay bëree moom dafa waane dooj mën a bëree nag mais mais yusu yusu yoolu def naa ko ndax xale bi ma gis nii bu ko xet xam naa mën a nekk bërekat bërekat waaye en tout cas doole moom. Youssou moo moo ëpp doole. gis nga. tekk jël du mën am sens. waaw gis du mën a moom. du ko ëpp doole. daa mel ni gisul adversaire bi bi mu koy. du mën a moom. combat bi lii du combat. lii du combat. booy bi moo ëpp doole. du combat. lii lay kaay. eh. kaay nii kaay. kaay. kaay. jëla. père Max. jaajëf jaajëf. sant rek sant rek sant rek munuñu dara suñu borom moo dogal ñu am ndam kawam rek waaw ñu ngi koy sant suñu borom bu baax a baax. waaw suñu borom la rek sant rek xaw ma sax barki sëñ Tuubaa mag sama day sonn si ñun amul frein day sonn si man di sant sama père Abdou Aziz Guèye sama booy yi ñi may ànd dañuy sonn si man waa Lamsar Sansala waa Teliba. waaw waxi naan Diamaguène Kër Mbaye Fall sant la waaw taliba maa ngi sant ñëpp ñi ma jàppale ñëpp maa ngi sant di sant sama ménager ndongo ak sunu coach box moo ñu yor box sant naa ko bu baax Tidiane Faye day sonn si ñun ay Kalidou ndongo ménagère ñooñu ñëpp maa ngi leen di sant Abou Ndiasse day sonn si man sita sita sita daa sonn si laamu ji àll ba borom Bambey gërëm naa ko baax laay ak waa Mbacke sant naa ñëpp waaw. waaw suñu borom moo dogalee noonu rek xam nga ñun ay jaam lañ mënuñu dara dañuy sabab rek. danoo ñëw suñ borom def ñu am ñu am ndax yàgg nañ ñëw mu demee neneen kon bu demee nii rek suñ borom moo nu may waaw maa ngi ci rek booy booy laa soxla rek booy bandi bandi man ay règlement de compte laay topp arafas du ma ko baax mu dem an nekk képp ku fa dugg am fa dara boo génnee maa ngi sa ginnaaw dama lay topp ñoom ñëpp maa